Euh, fonds politique yi am na budget global boo xam ne pour nit ñi yore réew mi la ñoom évalué woon nañ ko ci plus de 7000 milliards bi ngeen ñëwee sax am na correction yu ñu def ne dafa am bor yu ñu war a fay yu ñu ci dugalaale woon ñu dindi ko pour am la réalité du budget euh, par rapport ak kees googu maanaam euh, du sax kees ndax ay prévision la ak yooyu noonu mais est-ce que dilapidation bi ñuy wax ni luñ da ngeen koy nemmeekuwaale ci li nga xam ne mooy koomuk Sénégal de manière globale waaw xam nga déjà transparence mënta weesu nga ñëw ñi fi jógee ne la budget sept sept mille milliards nga am nga ñëw corriger ko ba cinq mille milliards ça veut dire que am nga yéene xamal askanu Sénégal que ni liñ leen doon wax ci wàllu budget dara lu sincère amu ci bu fekkee ne nag la ñu jaay sénégalais yi ci ay loi de finances initiale gëmloo leen ni lii ngeen am ci alal te tollul noonu kon li ñu leen wax ci diggante bi yëpp lu ñu war a saytuwaat la donc ce qui veut dire que li ñu yàgg ñun wax ci opposition sur la sincérité des chiffres sur la sincérité du budget mel na ni kon am na li ñu yàgg doon bu wax kon gis nañ ni liñ doon wax que ni budget Sénégal sincère yaa suñu député yàgg nañ ko wax budget Sénégal bii <laughs> nguur gi fi jugee doon wax ay 7000 milliards bi ñooy corrigé nañ donc Issa gis nga réew euh, bu fekkee ni yow parce que man j'ai comme l'impression que parfois ñi yoroon réew mi dafa mel ni dañu yoroon une entreprise entreprise et que voilà benn genre multinationale la euh, entreprise u acca ñëw leen gaaw ku ne duy sa duy sa poche mu fees ñu ñu dem mais du ma ci sori torop parce que y des audits qui ont été engagés ku ci nekk ci secteur bi nga nekk et euh, résultat audit yi dina génn te bu génnee ku ne la nga def wala secteur bu ci nekk lañ ca def nit ñi dinañ ko xam parce que dinañ ko wax les sénégalais actuellement les audits so sont sont sont en cours. mais est que moment de vérité bi ñu nekk warul tax nit ñi euh, day ko rek noonu l'émission même euh, bu fekkente ne nguur day jóg nguur di ko weesu je sais pas kan ci ñoom ndax kii kii kii dem la wala kii wuutu mais ñuy ñu diñ defal bilan wax nit ñi que ni lii lañ bàyyi fii tel secteur lii lañ fa bàyyi au lieu de ñëw. Euh, nit ñi dañ koy bëgg a ranger sax des fois ci jiñante rek pour xëy na ñu may la temps wu boo defee dara ñu ne ah ñii ñi kat woon nañ kees yi dara nekku ci wala yoruñu xaalis. xam nga euh, moo tax ma ne bu bu résultat audit génne génnee euh, dinañ ko gaaral askanu Sénégal te booba dinañ xàmmee période tel ba période tel lan lañ fi def ak ñi def lan lañ def. donc moment de vérité boobu dina amaat incha allah te beneen bi yaa aussi des des rapports qui vont sortir il y' a les rapports d' exécution budgétaire trimestrielle buñ ko xoolee di nga xam euh, nguur gi nga xam ni ñun ñoo ngi soog a ñëw parce que dégg naa ñuy wax ñu naan euh, ci rapport d' exécution trimestrielle nguuru président Bassirou Diomaye dépensé na mais mais loolu mënagul ne parce que rapport ñun ñu ngi jël. plus de 20 pour cent. avril. avril keñ rapport trimestre E ñan la concerné ñun concerné wuñ di ah, euh, trimestre E muy commencé janvier ba 31 mars mm. donc keñ luñ fa wax <laughs> ñun keñ defuñu ko fa ñoom ñoo ko fa def ñun ñu ngi xam ñun suñu nguur ci trimestre bi ñu yor cest avril jëm juin mooy deuxième trimestre di nga mën a xam foog rapport bi génn boo ko xoolee di nga xam Ah, ñii biñ fi toogee tey lan lañ lañ lañ lan lañ dépensé te ñun li ñu def. boobu ba léegi lu dem ci askanu Sénégal la ci laps temps bu gàtt fexe nañ ba pose action yoo xamante ni cent seize ma compté cent seize ou cent onze yoo xamante ni nguur gi teg na ko ci diggante ñetti weer yi ngir. am lu ñu jubbanti corriger ko très rapidement. ndax da nga ñëw fekk benn situation ba pare am looy dugg lu ci mel ni euh, campagne agricole bi da nga jël nguur te campagne agricole doo bàyyi ba juin wala juillet nga koy commencer ça commence bien avant donc war nga seet euh, ñi nga xam ne ñoo di baykat yi noo leen taxawoo subvention yi semence yi engrais ak yu donc c'est cette tension financière la bi nga fi fekk. boo ñëwee amoo sens li ñuy tuddee le sens des priorités doo doo def parce que budget bi nga ñëw fekk ñu votel la budget wu 2004 la yow sa budget bi nga xam ne yow yaa ko design maanaam li ñuy wax design yaa ko conceptualiser orienté jël crédit yi xam ñaata nga am ci mobilisation recette crédit jël ko def ko crédit crédit yooyu nga seet fan nga koy orienté ñun loolu ñu ngi koy mën a def à partir de 2025 mooy budget wu mille vingt cinq. ci ngeen di am yéen seen vrai budget. ci ngay mën a am yow budget boo xamante ni conception bi yow yaa ko def. def ko loi de finance initiale yóbbu ko assemblée ñu voté ko mais actuellement nii budget bi ngay fonctionner nguur gi fi jóge moo defoon loi de finance initiale ne fii ak fii laay def xaalis bi xaalis bi nii la toll. lii laa am ci dépense dépense yi lii ak lii ak lii ak la secteur yii la secteur yi la fii laa yóbbu tant de milliards fii loolu nguur gi passé budget bi ñu fonctionné nii nguur gi passé moo ko def ndax moom moo présenté woon loi de finance initiale donc ñun maanaam suñu pour jot koom man a tënku koom gi nga xam ne ñun moo ñu permettre pour ñu mën a def suñu action dugal ci suñu yéene yépp ñu ngi koy mën a am à partir d'une euh, de la loi de finance pour initiale pour deux mille pour deux mille deux mille vingt cinq mm. là da nga fi fekk ay actions urgentes. yoo xamante ni foog nga gérer ko. des impératifs yoo xamante ni wàllum njëgu dund gi ñu wàññi ko baykat yi ñu war a fay. ñu euh, seen ay bor ñu ñu ñu fay leen ko. Mhm. am na ci ay dette yoo xam ne yeneen muy wàllum santé beeg yooyu ñu fay ko. Mhm. loolu euh, gymnastique ngeen def pour pour fay ko mais dese ñu cinq mois ci kanam ñu ngi ci mois de juillet. waaw cinq mois yi après arbitrage boobu ci ngeen di continuer ba décembre. ki ngay continuer mooy li ma wax que ni foog nga am sens des priorité pour nga mun ko def te effectivement loolu loo ci loolu lañu tënku ba mun a permettre tey baykat yi nga jël leen jox leen cent vingt milliards ba pare fay seen bor lu tool ci quarante et un milliards pour ñu mën a dem waaj campagne agricole ndax am na loo xamante ni su fekkee da nga ñëw fekk ñu pasar pasaree xaalisu réew mi góorgóorlu woo ba campagne agricole parce que campagne agricole c'est pas nit ñi souvent du ñu mesurer la portée économique. Mm-hmm. bon li ñuy dégg rek ñu naan baykat yi engrais ak semence mais logique bi nekk derrière. mooy su campagne agricole baaxul mbay mi baaxul mais na la leer ni année bii di ñëw da ngay sonn boo moytul liy des ci sa koppar yëpp ay subvention nga ko nar def ndax nit ñi dañ nar a sonn subvention yooyu soo ci bëggee continuer accentuer ton déficit budgétaire et déficit budgétaire boobu noonu plus muy gën a creuser plus ngay sonn. le ministre de finances nee na c'est un cancer même la subvention. mais xam nga foog nga foog nga euh, booy daw ci ay subvention tout le temps tout le temps mooy dangay ngay li ñuy tuddee ay fattu turu nguur yi fii daanaka wala bi fi jugee lu ci ëpp ci fattu turu ngay ngay ngay dëkkee mais war nañ jóge nag ci fattu turu. te nag raax mu maasale ndox mi lii war a ngaan wala war a ngaan fu ne fa mu war a dem mu dem fa donc li gënoon li ñu fekk te mu amoon solo mooy li nga xam ne nit ñi doon nañ ko joytu ci campagne électorale nañu wàññi dund gi nañu wàññi dundu gi bi ñu ñëwee président euh, joxe ay instruction ñuy def ci jéegu yi am solo ña taxawoon di wax naan mënul ne ñoom ci si mënul ne ndax jàpp nañ ni ñoom lépp luñ tële rek ñeneen ñëpp war nañ ko tële ñu wan leen ni mën na ne mën na ne te def nañ ko ngir lan yombal askan wi. seen seen dund googu courant loyer. waaw mais gis nga. der aussi bokk na ci liy gën a rey père de famille yeeg mère de famille. xam nga ki nga xam ni dafa ñëw ci ñetti weer mu wàññi dund fekk situation bu métti kooku mën nga am yaakaar ke ni bis bu demee ba situation finance yi amélioré wu. dina mën a song yeneen secteurs yoo xam te dina noppal nit ñi e conseil des ministre bi passé gis ngeen instruction yi nga xam ne moom la président de la république joxe pour ñu saytu le dispositif réglementaire bi nga xam ne mooy euh, mooy tënk habitat ak lu jëm ci wàllu wàllu location ñu ni mel donc nee na nañ ko càmbar ndax balaa ngay jëlaat di defaat beneen action li nga fi fekk war nga ko seet d'abord le dispositif ki est est-ce que c'est un dispositif adapté compte tenu des réalité ou bien du, du contexte situation bi nga fi fekk après nga seet yow lan nga ci mën a def c'est comme ça qu'on a fait ci kii euh, réduction des prix des bi biñ ñëwee évoluer nañ situation bi xool nañ ñi nga xam ne mooy les acteurs discuter ci ak ñoom ku ci ne la nga war mën def nga wax ni lii war naa ko mën def li nga xam ne jàpp nañ état bi war na ci mën a intervenir ci ay levier mu def ko pour aboutir à ce résultat donc ça va continuer ainsi mooy lu ñuy song lu nekk dinañ ko càmbar ba mu wóor ne lii xam nañ la ne ci biir yëpp mooy évaluer le dispositif boobu suñu paree ñu dem toog ak acteurs yi ñi nga xam ne ñoo sekk loolu ñu toog ñu waxtaan suñu waxtaanee et dans ces discussions dans ces échanges la avec les acteurs euh, ci la solution yi di judd état seet li mu ci mën ak li nga xam ne xëy na war na ko ci mën a dolli bu ko defee ñu am benn résultat boo xam te ñëpp dinañ ci gis seen bopp. mais dafa am loo xam ne euh, daf ñuy xaw a jaaxal day niru lu paradoxal ci suñu xel mooy réew mi ñu doon euh, euh, caxat caxatee nañ ko koom gi bëri na ci loo xam ne jël nañ ko après ñu gis ay agence ak direction budgétivore yoo xam ne ba léegi mi ngi fii ñuy wéy di fa nommer ay nit. gis nañu sax yeneen nomination yoo xam ne nañ ñëw léegi. Mhm. par rapport ak coow yi nga xam ne moom lañ ci jot a dégg. est-ce que euh, finalement méngoo na ak li nga xam ne moom ngeen ñu décriral ak li ngeen di def. waaw xam nga euh, situation bi danga ko fi fekk mënu ko fi dindi mais tamit waroo toog banque say xam ne a ah, dama fi fekk situation mënu ma dara di nga jéem. jéem googu nag mooy andi ngay dugg ci arbitrage ak gymnastique goo xamante ni yaa ngi gérer urgence mais à côté des urgences lan nga war a mën a def en même temps. Ouais. c'est-à-dire boo ñëwee ne fekk naa situation c'est da nga fi fekk loo xam te ni dañ ko fooye waaye mais taxul tamit nga war a mën a toog banque say loxo ne doo jëm dara parce que dañ la fal tamit pour nga jëm dara nga jéem ci soxlay askan wi naam xëy na mënoo matal lépp xëy na ci jamono ji mënoo matal lépp mais di nga jéem jéem googu nag mooy andi parfois nga mën a parvenir à des euh, résultats ci yow nga xoolaat ni ngay doxalee benn lan nga war a mën a wàññi te lii war na mën a ñàkk nga dindi ko nga dindi ko li ci des nag li ñu tuddee la rationalisation. des dépenses day continuer di wéy. amagul na déjà. mais mais mais mais déjà rationaliser mu ngi commencé ci yow nga tànn nguur goo xamante ni vingt cinq ministres la. cinq secrétaires cinq secrétaires d'État mais vingt cinq vingt cinq départements ministériels qui renforcent et des secrétaires d'État yoo xamante ni qui renforcent les ministre dans dans dans l'exécution de leur de leur de leur mission. nguur yi passé ñaata la woon. plus xaalis boobu noonu nga doon jël doon leen ko jox te ku xam fonctionnement ministère ni mu diisee ak la fay dem ci xaalis mais xaalis boobu tey nga yem ci vingt cinq ministres tey jii moo lay mën a permettre nga mën a def leneen en attendant ñaareel bi nga fekk fi mobilisation des recettes ña doon fay impo waroon fay impôt fayuñu diggante bi da ngay dem saytu ji. ana ñi war a fay ñu fay ba pare fay li ñu war a fay mu lay permettre ngay mobiliser parce que euh, budget prévision la période bii dama fas ne jot sàngam yow boo ñëwee boo xoolee prévision boobu nga gis ni lii nii mën nañ mobiliser recette plus que ça ci jamono ji nga def yitte mobiliser ko donc tu es partagé entre la situation bi nga fi fekk une situation financière vraiment catastrophique ci yenn domaine niñ ko yore mais il y a les urgences mais également yaa des actes à poser en attendant. mais ñu supprimer ay directions supprimer au ouais, ay agences ñu xam ne kat ñii ñi ngi ci yoonu rationaliser les dépenses mais bu fekkente ne da ngeen a jël yëpp ñu reconduire euh, tegaat fa ay nit. non euh, yenn yi. est-ce que sax du ay doublon ci ay direction yoo xam ne xëy na yéen war ngeen ko càmbar xool ndax ñaari direction yi ñu même rôle bu ñuy joué noonu. comme ni ngeen ko boolee ci ministère yi mais dañoo gis fu nekk ña ngi fay teggi nit. xam nga boo ñëwee déjà régler la question du gouvernement. am nga loo rationaliser. li ci des tu vas la faire tu vas dans la durée Macky Sall. Mm-hmm. Euh, bi mu ñëwee en 2012 supprimé wul Sénat. ba mu dawalee quelque temps nu mu def dafa andiwaat wul Sénat mais andiwaat na yeneen ñaari institution mm-hmm. yoo xam dañuy consommer budget xam nga loolu lu koy waral. mooy nga ñëw bëgg a appliquer tout de suite benn mesure boo xamante ni yow saytuwoo li mu war a jur comme incidence parce que boo nee damay rationaliser mais loolu munoo ñëw tey def ko ci ñetti weer du lay def ci ñetti weer donc da nga utal app ndax rationalité rationaliser boobu euh, suñ nee dindi nañ telle institution ci wax la dindi gi ne mais dans les actes c'est plusieurs étapes te institution yooyu dañu am ay ay ay incidence financière mais également ci wàllu texte day am incidence ci constitution bi am incidence ci loi yi donc c'est pas quelque chose boo xam te da ngay ñëw tey tey tey rek décide bëgg ko def tey mu sotti tey ñi nga soo ko defee mooy waral li daloo ñenn ñi dala dal mooy ñëw nga pour satisfaire boo une demande boo xam te ni yow diggoon nga ko Sénégalais yi mais ci manière faire bi tu as posé plus de problèmes donc moo tax boo ñëwee. li ngay def mooy dangay ngay saytu parce que mënoo agir fekk yow mënoo jóg dem te xamoo yoon bii ma jëm mbuur laa bëgg a dem foog nga xam li nekk ci carburant ci oto bi foog nga xool ndax oto bi ndox mi baax na foog nga xool ndax pneu yi baax na foog yow mu leer ne techniquement oto bi mën na dem mbuur. wala su ma oto bi amee problème est-ce que amaat naa beneen option donc yooyu yëpp da nga koy xool boo ko saytoo ba mu leer la nga soog a jug nag xool action yi ni nga koy tegee ndax boo ko deful état du làmbaatu état du làmbaatu ndax benn act bi nga yaakaar ni dafa tuuti tuuti na boo xamante ni yow président mën noo jël décret wala ci mu def ko rek jeex na déedéet. dafa am ay implication implication yooyu ci wàllu texte la. ci wàllu direction lay ay texte ay direction yoo xam ne dañ koy dindi par exemple ci attelage bi ñu dindi fa ay direction yenn agence yoo xam ne yooyu je pense que jarul jaar assemblée nationale non mais mën nañ ko dindi wala même bu ko dindiwul sax ñu bàyye fa ay nit càmbar au lieu de da ngeen a jël teg fa ay nit est-ce que sama question mooy euh, mën nañu xaar anne prochaine par exemple ñu ne ñu kat telle direction malgré que nommé woon nañ fa Modou wala Samba supprimer nañ ko mais